Euh, dañuy wax dëggal liggéeyu jàmbur wante am na si ñoo xam ne nag dañoo dëggal liggéeyu jàmbur ndaxte yow problème boo xam ne sa yoon nekku sa maanaam yow doo sa mbubb doo sa tubay wante daal yow bokk nga ci ñi nga xam ne yow lañ ciy gën a gën a gën gën a coow maanaam bugaan dafa dem ba jamono bii ñu toll ay employé am fi mu toll nii tekkiituñ dërëm dërëm dërëm ci réseaux sociaux yi loolu nag buñ ko waxee yaakaar naa xel yëpp dina dem ci kër dof yi lan moo tax xel yëpp dem ci kër dof yi ndaxte kii nga xam ne moom moo di Kader dafa wax ju rëy joo xam ne jamono bii ñu toll nii yelloo na nag ñu daal di koy arrêté diglu ko canam gën a gaawee ba xam li mu wax fan la ko teg te kàddu yooye jàpp naa que ne jamono bii ñu toll nii waru ko woon yëkkati en tànk koo xam ne ay sénégalais dañ lay diglu en tant koo xam ne ay nit yu baree baree bari dañu lay bàyyi xel même bu fekkente ne sax waxi dof ngay wax wante nag ña sa mën a jëlee leçon ak ña nga xam ne dañ ko jàppee waxi dof bokkuñu. loolu moom moo tax nag tey ñu fas yéene dikkat ci ay leeral yoo xam ne moom mii di Kader def na ko ci digganteem ak ki nga xam ne rek moom moo di Bougane parce que tamit moom responsable la ci mbir mi ndaxte moo ko teg ci ab teleem mu nekk fa di wax. ci lu dellu ci wàllu immigration rawatina nag ki nga xam ne moom moo di Bassirou Diomaye jaxaar fay te mbir yooyu yëpp lañ fa yéene dikk daal di si indi ay leeral yoo xam ne boo ñu toppee rek sur ma chaîne di nga ci am lu la leer mën nañu émission boobee di émission Cœur d'Office siiw na lool jamono bii ñu toll nii ndax am na ñoo xam ne ñi ngi ko koy woowee am si ñoo xam ne nag ña ngay sàngal sutura te ñi ko ko tuddee sax dafa mel ne ñu ngi waaj a am ndam mooy émission bi nga xam ne ñoom Ndeye faatu Ndiaye faatiment Kader ak ñeneen ak ñeneen di ko def seen TV ndax ay kàddu yoo xam ne dañ ko fay faral di dégg di ay kàddu yoo xam ne kàddu yu njombe la wante moom mii di Kader nag. dafa yëkkati ay kàddu yoo xam ne yu doy waar doy waar doy waar yu garaaw lool lool lool sax ay dérapage la Kader def ci wàllum immigration clandestine ba ñenn ñi sax ñoo ngi wax ne procureur dafa war a woolu ki nga xam ne moom moo di Kader ndax bu ko defee war na kaa def bu ko deful war na koo def ci kàddu yu bon yu ñaaw yoo xam ne koo xam ne day wax ci publique waroo koo di faral di utiliser ndax ñi nga xam ne ñoom nga nar a influencer mën nañoo bari lool lool lool sax moom Kader nag li wax bu ngeen ñu toppee dinañ ko daal di indi ndax dafa dem bay tudd police ci wàllu ger di mbir moo xam ne mbir mu doy waar te jàppoon nañ ko ne moom fitu doomu aadama wuru faa mën a yegg jamono bi rawatina koo xam ne da ngay wax ci public ndax moom Kader nee na dafa am ñu doon dem Barça wala Barsaq ndax ku nekk xam na ne gaal yi jamono bi ñu toll nii ni ñu wullee ñaay ci waax yi ak jeunesse bi ni ñu jógee pour dem loolu te mën nañu ci ñàkk espoir la bokk ndaxte tamit dañoo gëmoon kenn bu Basiirou toog ak président Ousmane Sonko yooyee yëpp dina fi dakk wante ba léegi dafa mel ne euh, dafa gën a ñaay parce que tamit terewul nit ñi ngi dem ndaw ñaa ngi dem ay dee ñi ngi am ci biir géej gi wante nag loole lépp rek jàpp nañ que ne ci kanam xëy na kii di président de la république premier ministre am danañ ci indi ay taxawaay yoo xam ne coppite dina ci am. moo tax mu ne police wala bokk ñenn ci police dañoo dogale benn gaal laaj leen xaalis Kader nee na mi ngi ak audio bi te loole mën nañu nekkul loo xam ne lu ndaw la en tant que police koo xam ne yow tey sécurité bi yow yaa ko waroon a garde nga dem bay fekk ay ndaw yoo xam ne dañoo jël gaal pour dem voyager jaar ci mbëkk mi nga laaj leen xaalis bàyyi leen ñu dem loolu bu fekkente ne lu am la lu garaaw garaaw a garaaw la te loole nag jàpp naa que ne bu fekkente ne nii ko Kader waxee noonee la amee yoon war na kaa wóolu pour nag mu teg ojo yi nga xam ne moom firnde la ci moom waaw ndaxte procureur war na kaa wóolu li tax mooy ki nga xam woon ministre de l'intérieur fan yee passé dafa félicité Guy mari Sagna te li taxoon mu félicité ko mooy Guy mari Sagna daf ne dafa am benn policier ak benn taximan boo xam ne policier bi daf ko arrêté Guy Marius Sagna nee na mu njort ne am na lu taximaan bi jox policier bi ba ministre de l' intérieur bind di rafetlu acte bi Guy Marius Sagna posé maanaam weli pandé bi nga xam ne moom la weli pandé policier bi ak taximaan bi ndaxte nag ci kaw mu def li mooy tax ñeneen bàyyi xel këne am na lu fi nekk loo xam ne bokkut ak li fi nekkoon bu njëkk rawatina nag loo xam ne tey dafa dellu ci wàllu ger ak li ndax yooyu bokkul ci yi nga xam ne tey war nañ koo bàyyi muy jàll moo tax ministre de l'intérieur sax mi ngi soññ askan wi ngir acte yu mel noonu ñu di ko dénoncé tey bu ministre de l'intérieur bi nga xam ne mooy yilif police bu déggee ne Kader ne am na ñu doon dem ci gaal gi wax ne police moo leen arrêté bañ encaissé leen ndax daf ne leen il faut ngeen jox ñu ñooñu ne ko am na ñu jox mu ne il faut ñun tamit ngeen jox ñu ba pare moom Kader mu ne mi ngi ak bi mën nañ koo convoqué laaj ko audio bi laaj ko kan moo ko envoyé maanaam bu fekkente ne ci gàtta daal mooy source bi exemple affaire bi fan la jóge ndaxte Kader bu demee ba am audio am na audio bi fu mu jóge fi mu jóge foofu am na ko ko envoyé wala bu fekkente ne moom mi def audio bi envoyé wu leen ko tamit am na fu mu jaar daal ba seen te loolu yaakaar naa lépp ay enquête moom moo ko mën a leeral moo tax Kader laaj ko ne ko gaal ndax boo ko gisoon da nga dem mu ne moom bu gisoon euh, gaal njabootum gépp lay jël def ci gaal gi loolu yaakaar naa waxi Kader moom euh, wax jooju moom wax yi wax yi dof dëgg la nag moom ci li ma jàpp ko waa waaw ndax wax na ne ñi faatu fan yi ci gaal gi dañu ñu jékki-jékki gis leen ñu mat trente personnes moom mi ngi wax ne mën naa am ñu posene leen mën naa am leneen ak leneen maanaam euh, damaa jàpp ne fi mu toll nii day délire ci délire dëgg dëgg dëgg la toll ndaxte ñoo xam ne tey dañoo jékki-jékki génn ci biir géej gi faatu ñu jàpp ne ci ay gaal lañ faatoo nga naan dañ leen a posé nekk mën naa am jàppal bàyyil yooyu nekkul wax yoo xam ne tey wax yu tegu fenn la moo tax bu ngeen analyser bu baax a baax a baax li Kader wax jàpp naa ko ne euh, ñi si ànd ak moom du bari ndaxte mën nañoo jàpp que ne moom dafa am benn journaliste boo xam ne posé na ko question te loolu waxoon nañ ko sànq dañ ciy dellu si waat ndaxte biñ ko posé moom question que ne pour ñu leeral rek ne ko yow est que bu gaal taxawoon di nga dem moom li wax mooy damay yàpp sama waa kër dem. ndax moom daf ne toog bee dem dee loolu nag moom moo waral mbir yi nga xam ne tey moom moom mooy problème bi quoi ndax tamit mën naa bañ a nekk lu sérieux ci moom kon nag lim bëgg a wax bëgg koo expliquer mooy que ne jël gaal gi dem moom nekkul solution waaw donte nag mu ngi jëm a rafetalaat ne nekkul ne day encourager nit ñi pour ñu dem wante lii du continuer ndax bu ñoom Bassirou jëlu seen responsabilité les jeunes dinañ wàcc seen kaw te boobaa du baax gaal gi nag il faut que la police scientifique dugg si ndaxte mënoo xam ndax ñi leen di yóbbu ñoo leen di rey mënoo xam ba xam seeni condition dañ leen a posone ci gaal gi ñu dee mënoo xam mënoo xam mënoo xam parce que tamit lu ci baree baree bari jàpp naa que ne lu leerul la ndax euh, explication yi nga xam ne tey moom la joxe bari na si ay explication yoo xam ne yu leeru la donte ne nag am na si loo xam ne xaw na euh, yanu maanaa wante bari na si loo xam ne tamit leerul kon nag il faut que police scientifique dugg ci ñu xool ba xam lii est-ce jaadu na wala tamit jaaduwul kon nag am na si loo xam ne moom euh, lu jara jara jara bàyyi xel la ci jamono bii ñu euh, toll nii moo tax nag moom mii di Kader gannaaw ba mu daal wax ba dugal boppam moom mii di Kader ay kàddu yoo xam ne euh, daal dina koy yëkkati ci gaal yi loole nag mën nañu problème bu rëy rëy rëy la ndaxte nar na see am moom mi nga xam ne moom moo di Kader Sen TV gannaaw gi nag kàddu yi nga xam ne moom Kader daal dina koy yëkkati euh, wax ci gaal yi Euh, wax ba wax ci euh, li nga xam ne ñu bëree bari jamono bi la ñuy sàkku mooy procureur autosaisir ci ki nga xam ne moom moo di euh, Kader waaw ndaxte nag jàpp naa que ne loole moom du bokk ci li nga xam ne tey dañ koy bàyyi mu daal di jàll ndaxte yoon jàpp naa ne xam nañ li ñu war a def bu fekkente ne li Kader wax dëgg la xam nañ li war a def bu fekkente ne li mu wax du dëgg timit xam nañ li ñu war a def ndaxte waruñoo permettre des gens ñu toog ci télé yi. di wax lu leen neex waaw di def lu leen neex bu fekkente ne nag lii Kader wax dëgg la moom c'est plus plus grave waaw donc nag ñi nga xam ne ñoom ay autorité nañ ci jël seen responsabilité taxaw si ndaxte mën nañ koo jàppe waxi dof fekk ne nag foo tourné ci réseau yi ñu ngi koy partagé waaw donte la nag xam nga rek léeg-léeg moom nit day toll foo xam ne lu mu wax kenn dootu ko gëm kon nag ñu teg ko ci yoon bu fekkente ne dëgg la ñu xam ne dëgg la bu fekkente ne du dëgg nag moom mii ñu daal di koy jàpp yar ko ndaxte loole moom mooy dëgg kon Kader war naa daal di janoo ak yoon pour rek mën a leeral du sax soxor moom moo tax ñu koy wax nag wante rek euh, raga weddi moom du nuñ koy waxeeti euh, weddi du ragal wante teggituwuma la kon nag loole moom moo tax ñu yëkkate woon yi li kàddu pour dikk def partage ak yéen euh, sur ma chaîne YouTube Partout TV ci mbiri ki nga xam ne moom moo di Kader te mu nekk kaa boo xam ne tey jamono bi mbokk internet yu baree bari ñu ngi ciy yëy yàbbi di leen di jaajëfal ci topp gi safoo gi ak faale gi